bi ma ko sëñ bàcc waxee dama ne ko daanaka jarul ngay ñëw di ma boo ma ko waxee rek ci laa bokk ndax loo bokk lu sëñ Abdoulaye doon wax bul xaar ñu la ci fekk seek di la jox ay carte ak yooyu mel ni danga nga ciy bëgg cër waaw ndax taalibe moom taalibe rek la mën a doon muy waxtaan di jàng xasida loo mën a def it taalibe rek loolu benn moment la rek loolu faw ñu koy fàttali ndax bu waxtaan bi jeexee dangay dellu ci liggéey bi taalibe nga comme ñëpp xëy na sëriñ bay dof rek euh, ñu tànn la ci mbooloo mi rek di la wax loo ndax wax sax dafa xaw a yombul ci jamono ji rawatina ci mbiru sëñ tubaa ndax dañ koy wax ni nettali waxi sëriñ bi ndax sëñ tubaa lott nañ ci tuuti nañ di jéem waxtaan ci moom ndax moom ay waxam dañ koy daf koy codé comme ni suñ borom di waxee comme ni alxuraan di waxee moo tax Cheikh Ibra daan wax ni euh, doom bu jigéen bëggee firi léttam lu muy ut ñu ni ko ràbb ràbb yi ñuy firi létt mu ni nag alxuraan nag ku ko bëgg firi ñëpp ni tekk mu ni rab bu sama samawaati foog nga xam yàlla soo ko mën fa firi alxuraan kon alxuraan ay langage codé la boo gisee sax diw buy làkk chinois wala dara ñu yor interprète di ko woo waxuma laa sunu borom mi nga xam ni moom gone du gone gu jóg rek xam ay yëfam mbiru sëriñ bi noonu la ndax daan na wax ku ci mel ni sëñ Ahmadou Tasrif Sougou wala benn mag woo la bu la wooy wax la dara doo xam ni muy bëgg a wax ndax day cax sëñ tubaa dafa maanaam dafa kennal yàlla tawxiit moo ko jàngale danaan bañ par exemple tudd melo nit comme nga ni ko mu woolu loola nit nga ni ko ku gàtt ki wala ko naan dalay fi taxu ne la waxuma la nga wax ni ko yàlla bindee comme ñun nit ñi def kii dafa xees kii dafa gàtt sëñ Tuubaa danaan tere yooyu ndax moom tawxiid pur et lay dund dafa kennal yàlla moo tax yàlla kennal ko moo tax am na téere bu ñu naan mooy bu xuddus le les dons du très saint téere bu yéeme la ci tawxiid nga xam ni sëñ Tuubaa ak mi fikru insu aw jinnuha nee na téere boobu bu ñu dajaloon coalition li ñu naan coalition politique nit jinne ñu ñu boole seen xam-xam def coalition mënuñu bind téere bu mel noonu ci diine les secrets confinés dans livre n'ont jamais été déflorés par la pensée d'un homme ou d'un jinn sur terre nee na jinne wala nit te jinnee ko mën a xam wa maa xalaqtu jinni wal insi illaa li ya'buduun boo gisee suñu borom ni sàkkuma lu dul nit ak jinne ñu jaamuma xëy na am na yeneen mbindeef malaaka am na ay mala am nañ parce que ñooñu amuñu raison ñooñu automatique lañ dañuy jaamu jinne nag dafa mën a xam moo tax sax nga gis njabarkat yi naan la war naa xam li xew ci at bi nangam jinne dañ daan def loolu yenn saa yi nag ñu ñu xaw la trompé ndax jinne fixul tant que tuubul boo gisee sëñ Tuubaa ci jës bul xulóob damay ñëw ci thème bi duma ko génn muy soxna jaara mu naan la xawat xawaari wal badat anir ruwaati sabatat كم مشناري في الأرض ما عندي قائد نخمي وأين سواتلتي قد عزمت وجلتي للفرش قبل ملت وسيرت كالغدم وكان حداد شقبي تردا لأهل الريب أن سمع أخبار النبي ورجوا بالندم تريد فيها بالنجوم أن السماوات الرجيم boobu da lay wax ni avant rasulillahi alayhi salaatu wasalaam di ñëw yi fi xewoon ay perse xëy na du thème bi bëgguma cee dugg jinne yi niñ daan espionné malaaka yi di ko wax njabarkat yi nee na bis boobu ñoom ñëpp lañ dàq wa faraxaasi am ñu doon vise mise wak ami turi defa bi nujum nee na jël ay biddéew di leen ko sànni ani samawaati rajim ak seen seen njiit la di iblis jour boobu dañ leen a dàq ni leen am na luy waaj a xew moo tax jour boobu la jinne yi jommi moo tax booy seet ñiy faj ci wàllu cosaan bu ñu jàppee ku jinne dugg wala dara ñu ne laa ilaha illallah ba tudd muhammad rasulullah day yuuxu parce que Muhammadu Rasulaay moo yàq seen kaañ ni ñu koy waxee mooy seen noon bi njëkk ci waxin ndax ñoom tuubuñu moo tax boo ko tuddee rek dañuy yuuxu parce que moo yàq seen njabar yooyu ñu daan def nga xam ne lépp lu ñaaw dañ ko daan def avant muy ñëw moom la sëñ bi di annoncé naan nuurun azimu xat yara sëñ Tuubaa teggin bi mu koy annoncé sax bokk la ñuy waxtaan niñ koy waxtaanee naan ba muy màttu Aminata ak yooyu yooyu ëpp naa wax du ay teggin sëñ Tuubaa du ci wax yooyu moom danaan la nuurun azimu maanaam leer gu màgg feeñ na bii xusuru xaysara man kaana fi ummil xuraa makkata xayru urumi nee na da ngay toll màkk di seen rom màkk ak rom boo jàngee géopolitique ndox moo leen séparé waa rom dañuy naan waa màkk lamp bële di fa leer lu xaw màkk tey nekkate xayrul xalqi laa waroon feeñ muhammad rasulillah nga xam ne sëñ tubaa am na ci moom cofeel bu nga xam ni sëñ tubaa dafa gore xam nga yi bu koy wax dañuy foog ni waxi daanu la waxu waxu murid déedéet sëñ tubaa rek a gore kennal yàlla ndax jamono yële dama gis benn ci téere sëñ Alaaji Mbàkke def naa tom bi borom ñu dagg ko dugal ko ci TikTok bi xissa bi nga xam ni sëñ tubaa bi muy nettali ni daawoo mag ñi bis ni leen bi xam ngeen fa ma fanaan ñu ni ko dee dem mu ni saa borom laa demoon jotaayal ci baytul mahmud maanaam kaaba gi ne ci kaw nga xam malaaka yee koy wër nee na ma ñëw fekk fa nitu yàlla yi sëñ tubaa ay wax de nee na ku ne di ñaan lii laa bëgg lii laa bëgg lii laa bëgg sëñ Touba nee na ba mu egsee sama borom ni ma yow loo bëgg mu ni ko man bëgguma dara xam nga lu ma bëgg laa ilaha illallah di dëgg faw muhammadu rasulaay fi mu la yem bu la fa kenn egg sunu borom ni ko yaa gore de yow maag yow a bëgg-bëgg nga sëñ ni mu goree ñeneen ñi ñu ngi ñaan ay daraja ñi nangam waaye moom daana ko bëgguma dara sa dëgg gii na dëggu faw sa yonent bi fi mu la yem bu la fa kenn yem moom la alhamdulilah mu mubbin vérité indéniable maanaam dëgg bi nga xam du changé lu jamono métti métti du changé sunu borom ni ko yow de ku gore nga jege sil nee na bi mu ko waxee ni ko yow maa ngi lay giñal maa ngi lay maa lay seereel ni yow mii de li ma wax tax na bis soo ne ma woon jéggalal iblis ak na ma jéggal leen su la neexoon nit ñi jaamu yàlla ba foog ni am nañ ngóora ba foog ni ñoo ci ne nga ni leen tàbbal leen safaan man ma def ko ndax li nga ma wax te teg ci nag ni la du gërëm naa la moo tax sëñ Tuubaa ñun ñoo ko mujjee sant chaque jour dama koy war bu ñuy sant sëñ Touba ñoo ay yéen da ngeen a baax yàlla nga war a sant mais yàlla moo njëkk a sant sëñ Touba chakarani allahu inda jami junni yàlla sant na ma devant ses élites xam nga ñuy junni yi mooy tànnee fi maanaam wax du ñëpp de maanaam na muxarrabuna urul azmi yonent yi nga xam ni loo gis dafa am élite sëñ Touba nee na yooyu la woo nag ni leen ahmadu mii sant naa ko nekk gi ma fii ne di liggéey liggéeyal Muhammadu solaay mbégub yàlla la mbégub yonent bi la moo tax sant giñ ciy sant mooy biñ ko amee mu am ci fi mu jaar muy soxna jaariyatullaay nga xam ni sëñ Moussa koy wax naan bi muy wax maam Seyna bu Njaay waajuru Cheikh Ibra Fall nga xam waa njare njaay lañ danan ko jaaraama maam Seyna bu Njaay la soxna jaar yor di jaay yaa ko mosal waa njare njaay saw ŋàññ roñ na yaa taxe soxna jaara xam nga soxna jaara niñ koy waxtaanee souvent dañ naan la ne en 1800 nangam à Porokhane chaque jour même chose soxna jaara waxtaan ko weesul waxtaanee ak taalube waxtaane soxna Mariama ndax tuddul soxna jaara xam nga Mariama titre la maam njaara titre la jaariyatulaay mooy ku liggéeyal yàlla bu dëkkaaleek moom xam nga sëñtu Tuubaa mi koy wax jaawartu laa maa dëkkaaleeg sama borom jaawartu rabbi bi lisaani arab yi langue arabe damaa dëkkaaleeg moom moo tax gis nga ni mu koy def ci xasida yi nu ko neex lay def bi gaa yi jàng sànq muxaddimatul amda nga xam ne day jël aaya alxuraan wala daggitu aaya alxuraan ràbb ci ay woy nga xam ne muhammadu rasulullahi suratu nun wal xalam sunu borom ni ko wa innaka la laa xulon azim yaa yor jikkooy rafet mooy li ma la waxoon sànq sunu borom waxam dafa naqaree xam day wax rek sànni yaa ulul albaab borom xel yi waaye yan boroom xel ndax nit mën naa am xel te nekk yéefar borom xelu spirituel yi lay wax ñiy xeeñ aaya boobu la jël tëgg ci muxaddamatul am daa def ko fukki waay ñaar ba mu mat fukk ak juróom benn seize douze ans la ko def wa surtout bi rabbil arshi yéen ko koy wax sànq xam na dul thème bi damay baña a def digression waaye maam jaara laay bëgg a ñëw ndax soxna mariama lañ ko lañ ko tuddee soxna mariama mooy waajur insa xam ngeen ko yéen ñëpp soxna mariama alxuraan da ko tagg jox ko saar moom rek mooy ki am saar ci alxuraan ci jigéen jigéen ñi nga gis yi ñuy def ci xew yi nii ndayale nañ diw dama koy wax bu fu ma dem ma leen dangeen a baax rek di ndayale waaye jigéen ñi ndayale nañ leen ba pare mariyaama lañ leen ndayale aaya bi sax kayen ayn saat sëñ tubaa tëgg na ci kufitu xasid ak kufitu keef gi mu tëgg ci ayn bi ak saat bi ak ak ayn bi maanaam day jël côté yi ci alxuraan alif miim mim saat xaaf wal xuraan mu jël aaya di ci tëgg ay xasida suratu mariam nga xam ni moo indi histoire mariam boo jàngale histoire Mariam rek comprendre nga kuy soxna jaara ndax moom lañ ko tuddee maam jaara titre la wax naan Mariam sax am na xasida bu ma gisoon bu tudd way nii samay tuxam Mariam. Mariam famille Al Imran la bokk jigéen ju baax la woon goo xam ni daa sell ba sunu borom waajuram da koo jaayante woon pour wax ni ko boo ma mayee doom ma ma ma ma dafa am benn benn benn pacte bu mu defoon ak sunu borom yàlla seetlu ko sunu borom jox ko doom bu jigéen bu góor la yaakaaroon. foofu loo ciy jàng góor baax na jigéen baax na Mariam nag taxaw taxawaay bu rafet daan jàmbaar dem ci dex ba ndax histoire mi ngi sotti Mariam. nga xam ne bi mu waree am tout tànk yonte yàlla Iisaa nga xam ne sëñ Tuubaa boole na leen wooy xasida ak fusti xasida gu neex sax naan ko yaa umma ruhil maliki yaa umma jaalil xaaliki ibnuka laa bil xaaliki ndaali mu massiki xam nga sunu mbokku chrétiens yi ñoom dañ naan Iisaa dañ ko crucifié dañ ko daaj alxuraan waxul lool daani wamaa xataluhu wamaa salabu ba rafaxalaa dañ koy yéege moom la sëñ Tuubaa naan ko kenn loru la kenn kenn kenn loru la dañ laa yéege mooy fus ci xasid ak fus ndax Mariam bi ko naa Jibril waree indil tu tànk jaare na nu ko nu ne damay bëgg a wax sellaayu jigéen ak jigéen ni mu amee solo sunu mbokk jigéen yi lii dama bëgg ngeen teewlu ko ndax lu jiitu loolu sunu maam Adama ak aw sunu maam Adama biñ ko anesthésié mu nelaw ba yeewu sunu borom génne ci moom xawaa biñ ko génne ci moom aadama da koo gis rek bëgg koo song sunu borom ni ko teyal maanaam melokaan bee ko neex mu ni ko balaa ngay egg ci moom faw nga canal ko can gis nga jigéen ni mu amee doole jigéen noo def canal ko balaa nga koy jël nee na mu ni ko lu ma koy canalee mu ni ko salli ala muhammadin da ngay julli ci yonent bi gis nga yonent bi daan na raj daan na faj ay aajo avant muy feeñ jamono moo tax sëñ Tuubaa ne ko huwa lazi faaxa siwa minal baraya bil huda hatta bada kat bu chama fi archikal moisimi gis nga nee na tim na moom Muhammadu Rasulullaay tiim na képp ci njub ñu ni ko waa léegi bu tiimee ñëpp sëñ Tuubaa ba mu jaral sunu borom jël turam bu sell ba bind ko ci arasam ga gis nga aras mooy misaal ci fi sunu borom toog waaye nee na fu mu bind laa ilaha illallah da gis Muhammadu Rasulullaay moo tax aadama nee dafa yërndu ni ko ah, yow de sa chaise bi damaa gis nga kennal ci sa bopp waaye daa am keneen koo ci rax mu ne ko kooku boo jéggaloo ci moom ma jéggal la gis nga yàlla ni mu fi mu teg Muhammad Rasulullaay ci turu Muhammad Rasulullaay la ko canalee soog ko jël kon jigéen dafa am doole moo tax Mariam balaa muy am tuutànk naa Jibril da koy xool day soppaliku xanaa xamoo naa Mariam am na sax ay lu yonent amul moom am na chance su gis Jibril te yonent yàlla daaw da gisul Jibril Jibril juróomi rek gis mooy urul azmi te moom daan na ko gis man am na lu ay yonent amul moo tax bi mu ñëwee xool ko ni ko ah dem ci sunu borom ni ko kii ndaw si daa sell ba bopp ndaw si xawma fu ma koy jaar nee na mu demaat ni ko demaatal rek Mariam bu ko xoolee xaw a ragal dellu bi mu ñëwee troisième fois bi muy sikk sàkk rek ci la ko Jibril soufflé l'esprit la Saint-Esprit moo Insa ci la ni ko xaala annama rasuli rabbiki li ëhëbal lakki xulaaman zakken man la sa ndaw borom damaa ñëw pour may la doom xam nga am na ñuy werante boo nee sëñ tubaa ñaan naa ko am doom wala sëñ Fallou ñun la yàllaay maye doom te pourtant Seydina Jibril nee na ko maa lay may doom ci ndigalal yàlla moo tax dégg dégg dégg diine yombul waaw dégg diine lu ñu wax nga ni bidaa nangam déedéet ci biis ni laa sëñ tubaa saa yoo wax danaan ci kattanu yàlla ndax yonente yàlla Iisaa ku ne xam jigéen la njëkk a dekkal médecine moderne nga am bu dee da nga am lèpre li naan gaana maa ngi tudd mu faj la boo handicapé mu yëkkati la li tax muy def lool parce que leeru yàlla gi newoon ci moom xaaju nit xaaju malaaka moo tax amul woon soxna parce que leer gi ko moo tax ñu naan ko Isaa ruuxul laay nga xam ni il a parlé dans le berceau bi Mariam delloo ci dëkk ba dañ ko doon revue de presse li naan revue de presse naan ko waa Mariam yow yaa doon wax da ngaa sell da baax yaa indi nga fi doom amoo jëkkër moo tax suñu borom nee na jigéen dama koo fonk ba képp ku tooñ jigéen man dama koy sotle man damay sot xanaa xamoo tooñ jigéen bu maanu ci kabaayir yi la bokk kabaayir mooy juróom-ñaari péché majeur yi nga xam yu màgg lañ ay rey nit ay daw ci xare tuumaal jigéen ju maanu Seydina Aysa mi nga xam ni kenn la woon moom it naa Jibril bu daa indi wax yu danaan ko nuyul ma Aysa yàlla nee na mi ngi koy ziar. Seydina Aïcha am na loo xam ni moom la yonent bi wax yéen saaba yi seen xaaju diine na ngeen ko mottalee ci Aïcha saaba yi ak ni ñu toll Seydina Aïcha nga xam néegam ba fa la yonent bi wàccee liggéey fa lañ ko denc mooy mosquée de Médine foofu nga xam ni xibla tey xiblatayni ñaari xibla la am xam nga ñun jullit yi dañ daan jublu Israël baytul maqdis waaye yonent bi bis boobu mooy nisu saabaan mooy jouru màggalu borom daaru muxti xam nga màggalu borom daaru du woon nisfu saabaan sëñ Fallou mi nga xam ni moom it mbir la ci weer bii la feeñ moo leen ko jox ni la dee leen ko màggal bis boobu nga xam ci la sëñ Touba dellu si jour boobu la yonent bi jàkkaarloog namm dëkkam ba di di màkka fi muy julli yàlla yëndu ci xol bi ni ko xam naa ni namm nga màkka waaye bis ni ki tey sax jël naa xibla léegi jëlee naa ko Israël def naa ko màkka looloo indi màkka di xibla ni ko jàkka boobu ñaari xibla la am foofu néegu Seydina Aïcha la woon moom la sëñ Tuubaa yi wax nga xam ni jàkka boobu fële baytul maqdis la jógee rañaan ñëw Médine moom laa wax ci baytu Matlab Fawzeyni seen turu euh, daara ji wallazi haajara lil madina sëñ Tuubaa nga koy wax ci tàmbali ba bis ni yi fa saanali diina nee na ma ngay gàddaay jëm Médine nga xam mi ngi koy nettali ci xasida yi xat baata yasri min bax di tuxri mu diima bishri fi lan bi ay nee na boobu xotti na asamaan yi jiite yonent yi leen mbëgg sóoral lamiin gis nga jigéen day secret sóoral amiin yi maanaam ki ñu wóolu maal amiin yi fawqal amiin yi fii ay xam nga amin foofu lima ci bëgg a jàngal mooy amina foo dégg ku tudd amina ci amiin la jóge te sunu sang bi Muhammadu Rasulaay Aminatu moo ko meñ kon waajaloon na ko ci ku mu wóolu mooy amina soxna aminatu gis nga jigéen ni mu yàggee joué moo tax soxna jaareetu laay sunu borom a ko préparé woon mu war a indi Muhammad Sëriñ Tuubaa mi nga xam mooy ràmmu jaam yi nga xam ni euh, waajuram di soxna astawaalo xam naa sëñ Omar Ndiour a ngi egg si day wax ni bu ngeen di waxtaanee maam Jaara da leen ci dugal waajuram ndax bari na murit yu bari xamuñu soxna astawaalo te kooku luy ji njaag mooy jaag ndax Sëriñ Tuubaa ku ne xam na ni bi mu fi bi soxna jaara di fi bàyyeekoo 1866 sëñ Touba 13 ans la amoon xamul waajuram bu jigéen bu baax maamam moo ko yor ca naawel man mii dem naa fa fa la bindee xasid ak sindiidi yàllaahu bil Moustapha sindiidi yàlla wa bi xalilika Ibrahima yàllaahu nga xam ni fin bi mi ci ñaanal waajuram naan ko laa tax tabirha ma laysat bi xaadiratin wala tuhayib bi rajaa ni ko bu ko topp na ko na ko sàmm te taataan ko daal di koy yërëm ci bàmmeel waa waajuram soxna jaara nga xam ni soxna astawaalo moo ko yoroon soxna astawaalo taarix indi na dund na 137 ans góor yàlla la woon daanak ci waxe ndax jàllaaba la daan sol am sikkim moo jàngal sëriñ bi jàngal ñu bari xam-xamu fiq ay kilifa yoo xam du ma tudd seen tur ñu bari nekkoon nañ ci moom naawel sëñ Tuubaa nekkoon na fa gàmm yi mu njëkk a def nee na ci sama maam laa ko defee dégg ngeen taarix bi ñu yónni woon sëñ Ibrahima Sarr Ndiagne bi ñu ko yónnee naaweel bi mu ñëwee sëñ tubaa jël aaya ba di ko woy naan ko jazaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka xayral jaza wal muna daaray ni awlaaka jazaaka yaa xillu yow soppeem ba sëñ Ibrahima Sarr Ndiagne nga xam ne sëñ tubaa da ko woo ni ko danga ngaa rafet yàllaa ni dalaa sopp moo tax ma bëgg la gis nga sëñ tubaa taw ni mu koy jàngale mooy xool nit ni la yàlla nee na yow de jullit akkan nga sëñ moor Ndiaye jullit nga xam moom lañ may taawu Cheikh Ibra Fall soxna Fat Fall sëñ Mor Ndiaye jullit sëñ tubaay ci moom ngay déggee yooyu saa borom laa jógee saa borom nee na nangam moo tax soxna jaara rôle bi mu joué dama koy wax soxna jaara du pour jigéen rek soxna jaara góor sax da ko war a roy ndax ak taalu bi rek la jàngale mooy nangu xam nga soxna jaara ñoom ñëpp bokk maam maaram moo leen meññ ndax soxna Asta Waalo mooy seen maam soxna Anta Ndiaye nga xam mooy waajuru maam Cheikh Anta moom da doon dem di yóbbu seet dégg ngeen taarix bi par accident ci waxin entre guillemets ci la remplacer seet bi maam Mor Anta Sali denc ko. moom moo recommandé maam Mor Anta Sali soxna jaara ni ko gis naa jigéen joo xam ne boo ko dencee gëm naa ni di nga am lu baax ki nga bëgg doom ji nga bëgg di nga ko am. soxna Faat Isa Diop waajuru borom Daaru Muxti ku ne xam na ne biñ koy may. sëriñ Mor Anta Sali waajuram moo jaay oram joxeel ko can gis nga ñooñu niñ daan niñ daan def dem di recommander sa borom kër wujj te léegi am na ñoo xam ni boo waxee wujj mën nañ ci xëppante ndox mu tàng mën nañ ci reyante ndax ragal wujj parce que ñooñ dañ daan gis lu baax xam ni mënu ko am sama borom sama moroom mën na koo am soxna ma Anta Ndiaye moo recommandé sëñ euh, sëñ Momar Anta Sali soxna jaara kon jigéen nañu xamaat seen bopp waaw loolu lu jar di waxtaane la ndax bi mu ma ko waxee ni ma thème bi xëy na sëñ Xaadim mooy waxtaane ci sëriñ bi yow ci soxna man leen waaw soxna yi yenn saa yi nga xool soxna ci TikTok wala dara nga xaw a désolé li tubaab naan désolé parce que jigéen fi ko yàlla teg ba buñ koy rob bu faatoo dañ koy dañ koy muur soru rabal pour pour wormaal ko ndax ni mu taxawee ci lislaam secret yi ngay dégg ci lislaam ba ci ki ci njëkk faatu soxna Xaadija ñoom ñëpp seen taxawaay ci lislaam moo tax sunu mbokk jigéen yi maa ngi leen di ñaax ñu gën a góorlu ndax lu mel ni wasiyatu soxna Penda Diop sëñ Tuubaa yóbbal bi mu ci jox jigéen ñi daf ciy wax ni xare bi jigéen am mooy tarbiya borom këram. na sàkk sàkkuñu ñu ñu yem ci lislaam góor ak jigéen a yem ci lislaam waaye nan lañ mën a def pour am ci njariñu xare yi nee na yonent bi ni ko yéen xam nga luy seen xare mën ngeen a maye ndox def lépp waaye seen boroom kër yi sëñ Tuubaa nga ko indi ci wasiyatu Penda Diop nee na jigéen dëgg xare mooy ci biir sëyam ndax borom kër day wuti dépense jigéen a mën a gérer xanaa boo déggee ñu naan la femme est source de vie déedéet c'est pas du hasard loolu wax jooju ndax góor yonent bi nee na boo gisee aawo par exemple aawo ñu naan diw mooy aawo diw aawo xam nga fu mu jógee mooy ki lay ci doom ji maanaam yaay mooy meññ doom waaye aawo mooy koy awu ci ci yaay ji moo tax nga gis borom kër yi woowee seen soxna kii sama yaay la jigéen dafa am taxawaay ci lislaam xam naa dañuy wàcce kàddu yi xam ni barkeelu la woon ñu ngi ziar sëñ Omar Ndiour mu soxna Asta di ko ziar di jéggalu na xam naa gëj nañ gisee di ko am taxawaay ci Serigne tubaa waaw moom léppam Serigne bi la te day day wax ci ay xam naa la ma Asta mooy yoonu murit waaw yenn saa yi mu wax ma ree ni ko waaw ku ne sa tolluwaay ak fi la Serigne bi dimbalee moo tax kon ñu ngi ñaanal Cheikh mun Bachir yàgg fi. di ñaanal borom ñi organiser lii yàlla def ci tawu feex ndax ak cant moom euh, sunu borom a ko digle ni ku sant ma dolli la waaw ndax sant sañ Tuubaa bu jamono yëngu-yëngu ba ñu ndax diversion day bari yenn saa yi nga topp politique wala topp dara ba bëgg a fàtte ni sant sañ tubaa lu ñu war di taxawal la waaw ndax ak cant dafa ne ci alxuraan thème bi dañuy bañ a génn rek waaye alxuraan lépp ak cant la sëñ Saalew ko wax. ndax sëñ tubaa li tax mu jël màggal tubaa def ko yëfam xam na li mu def bu baax waaw nee na bi ma xoolee jaamu yàlla yëpp waaye yàlla bu góor góorlu na ci waaye lenn laa gis yàlla bëgg ko ma xam ni nu mu ko bëggee mooy iblis iblis nee na wala tajudu aksarum shakirina maa yàgg ak sunu borom ba xam li mu bëgg jaamu yàlla yëpp neex nañ ko waaye ak cant ko gën a neex sëñ tubaa nee na ma ne ah comme ak cant ko gën a neex ma jël def ko sama yëf mooy màggal tubaa nga xam ni ak cant suñu sunu borom la sunu borom kenn da ko fee musul indil dara li nga fiy dégg loo fi def sa bopp nga ko defal tabaski boo ko defee Seydina Ibrahima Ismaïl koor loo def waaye sant yàlla moom sëñ Tuubaa ko fi indi <laughs> sant yàlla moo ko wàcce def ko muy lu ñu lu ñu concrétiser nga xam sunu borom mi ngi koy wax daawuda ixmilu ala daawuda shukran wa xalilu min ibaadi shakur ci sóoratu euh, saban yi kon sant sëñ Touba lu war la ci bépp murit bi nga xam ne xam nga sag ndimbal ak sag tawfeex la ko sëñ musaa ko waxoon bu dul woon sag dem gi wolofu nasaraan kon billahi ñëpp di dem niraani kon maa ngi daaneel kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu